Sebagai, benda yang ni ah. Tem, tem, no. Ya, ya, wait. Ya, jo. Kipi tu lah. Kipi tu lah. Voilà sama gars yi ñu ngi Pikine voilà ñu ngi ñu ngi Pikine waaw Pikine lañ nekk nii voilà convoi bi mu ngi convoi Diomaye ờ, voilà coalition jaajëf voilà ñu ngi nii Pikine eh, yàlla moog jaajëf jaajëf jaajëf voilà convoi bi nag dañ ko téye fële ci kanam waa dañ ko téye ci ginnaaw waaw ñu ngi euh, buntu Pikine la nekk ni convoi bi ñu ngi ko téye fële ne ñu ngi ko téye fële ci euh, ci ginnaaw waaw embouteillage bi moo ko xaw a ko def <laughs> eh, sama gars yi béyu na waaw sama gars yi comme ni leen ko waxee gis ngeen waa convoi bi euh, embouteillage bi waa am bi comme ni nga gisee ñu ngi nii Pikine la jëm. fan ah, la jëm. beneen sama gars man la indi jonaar damay kii rek. non non non ah auto sécurité xam naa ko mais man la indi jonaar. dama la ay criminel. grand mun naa taxaw ni ah. damay def live rek man la indi jonaar. ah doo bàyyi indi jonaar yow. <laughs> <laughs>

waaw embouteillage moo xawoon métti voilà. Voilà, maa ngi doon si kanam ah. ok voilà sama gars yi voilà comme ni ngeen ko gisee. léegi maa leen di daw comme ça jëlee leen convoi bi. Dạ được. Con vào ngàn nữa. Socorro mãe de mãe! Socorro mãe de mãe! Socorro mãe de mãe! Socorro mãe de mãe! Socorro mãe de mãe! De mãe mãe socorro! De mãe mãe socorro! Diomaye mooy Sonko Diomaye mooy Sonko Diomaye mooy Sonko de Vitória. doon faral di suul Basiru du ko teree feeñ Basiru du ko teree am ndam xañ RTS Basiru Diomaye Faye du ko am ndam premier tour Basiru premier tour premier tour premier tour Basiru Diomaye premier tour premier tour. Diomaye. mbokk yi. Macky Sall pareegul ak ñun de. ñun ñoo ko imposé campagne électorale bi. bu ñu yox yoxi wee def ñu leneen. bu ñu yox yoxi wee mu ñu beneen bagage. donc nañu dëgëral taxawaay bi. nañu dëgëral taxawaay bi. nañu dëgëral taxawaay bi. na daw naa ko na daw Gel. Bana bak. Gel. Gel. Jim, Mavis. Lu dah. Lu leh. naka affaire yi. voilà sama gars yi comme ni ngeen ko gisee. lá, como guy sama gars yi gis ngeen de voilà gars yi nii ñu ngi Pikine waaw ñu ngi Pikine et voilà merci beaucoup. salaamaaleykum ñu ngi leen a ziar. ak képp ku doon ñu ngi koy ziar. jaajëf sama gars yi ziar leen. ça va ça va non sama gars yi nag instant yi mënaguma wax ndax li ma daw moo bëri quoi waaw instant yi moom dama daw lu bëri waaw teg si damaa woor voilà waaw ñu ngi nii Pikine voilà ñu ngi nii Pikine waaw waaw Pikine yëpp gën a mais embouteillage bi embouteillage bi moo moo tax affaire yi waaw ñu ngi. voilà Pikine lañ nekk mais bi mu ci kanam waaw Pikine lañ nekk mais convoi bi mu ci kanam voilà embouteillage bi moo xaw a téye oto yi quoi mais nit ñi gën nañ bu baax a baax a baax. combat bi nit ñaa ngi ci kanam waaw yéen a gis nit ñi nit ñaa ngi ci kanam waaw nit ñaa ngi ci kanam Okay. sama gars yi jaar jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf ndeysaan jaajëf sama gars yi jaajëf voilà comme ni ngeen ko gisee sànq gars yi ñu ngi ne la ci kanam waaw gars yi ñu ngi ne la ci kanam waaw ñu ngi ci Pikine voilà Pikine Lansar ñu ngi Pikine Lamsar waaw côté Lamsar lañ nekk waaw Lamsar Pikine jaajëf ndeysaan maire yi Mary maire Mary ñu ngi naan maire yi nee bu ñu campagne maire yi Mary, Mary, jarul ñuy campagne parce que gagné nañ ba paré ndaysan wala maire bi maire bi lay bi lay ndaysan ndaysan ndaysan ndaysan da ngeen maire yi nee nañ ñi campagne jarul ñi campagne parce que ñun gagné nañu ba pare nee nañ ñun jarul ñuy campagne kon dégg ngeen ko bu baax baax voilà waaw ba léegi ñu ngi si Pikine nag voilà ba léegi ñu ngi Pikine mais convoi bi mu ngi ci kanam waaw convoi mu ngi ci kanam embouteillage moo métti voilà embouteillage moo métti moo tax ba léegi nii gis ngeen voilà convoi mu ngi ci kanam mu ngi baa ngi ci kanam waaw xam ngeen ak euh, li nga xamante ne mooy weeru koor bi euh, nit ñi heure ndogu gis ngeen am euh, dafa fonk ndogu waaw loolu moo xaw a baare moo xaw a baare yéexal li nga xamante ne convoi bi mais soo xoolee gars yi ñu ngi nële ci kanam soo xoolee ñu ngi nële ci kanam waaw gars yi ñu ngi ci kanam a kanam eh, ana ana ana da ngeen ndogu ana gisale ñun de ñu ngi nii ana ñu ngi sur le terrain waaw loolu lañ ci xamul nag tey moom presque li ma daw moom li daw moom tey moom mooy loolu. waaw gars yi ay jàmbaar lañ vraiment waaw population bi ñoom ñu ngi génn waaw. population bi ñu génn fu ñu romb population yi ñu ngi ñu ngi ñuy wane ñu ngi wane seen seen seen seen bëgg bi ñu bëgg li nga xamante ne mooy président Sonko ak ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye waaw dégg ngeen comme ni ñu ko waxee sànq rek da ngay romb sax ñu naan leen jarul ngeen di campagne waaw jarul ngeen di campagne parce que élection yi nii gagné nañ ko gagné nañ ko waaw gis ngeen gis ngeen convoi bi voilà abo naa la abo ana ana nag waroon nga ma jox sa ndogu boobu de ah nga taxaw convoi baa ngi ci voilà convoi baa ngi ci ginnaaw. leader yaa ngi ci ginnaaw. <laughs> Ngok dëpp laa ñëw maa ngi doon ñëw sànq nii ah? waat ma war waa. voilà. yéen da ngeen a pare. pare guñu. Hmm. yaa ngi wax ji éminé na mais gars yi ngeen a dem seen dëgg la. waaw lu paa bi wax sànq. dengen lu pa bi wax pa bi nee buñu buñu kulo bu buñu kulo buñu xex parce que ñiñ ko sekkal ñom paré wuñu wa nee kuñu ciokas buñ ko faalé ndaysan pa bi loolu la doon wax sank wa nee kuñu togn buñ ko faalé wa nee ñi nga xamantene ñom lañ ko sekkal ñom paré wuñu wa ñom paré wuñu chaque jour sax ñom ñi ngi reyante li nga xamantene seen biir wa soxna ndjay waaw amul benn problème waa après damay bind in kii rek après nga bind ma messenger. gis nañ amute voilà convoi bi ci kanam la bloqué woo waa ci kanam la convoi bi ci kanam la convoi bi bloqué woo waaw ci kanam. gerte ini dafa waaw loolu ñu voilà ñu euh waaw ñu ngi Langsar ba légui awa awa ñu ngi Pikine ñu ngi Langsar ba légui waaw ñu ngi lancer mais embouteillage mo xawa mo xawa bari ginaaw ray sud hein voilà ñu ginaaw ray sud ginaaw awa voilà ñu ginaaw ray sud voilà awa ñu ginaaw ray sud ginaaw ray sud lañ nek waaw ginaaw ray sud lañ nek mais lum mu def voilà ñu ngi ginnaaw sud

réew mi soxla seen biir kër ngeen di toog voilà ñu ngi ginnaaw raay sud ñu ngi ginnaaw raay sud dem leen ne Guy Marius Sagna moo ngi ñëw ñoom capitaine Touré dem leen ñëw leen ko jabee ngi voilà comme ni ma leen ko waxee convoi baa ngi ne le convoi baa ngi ne le comme ni ngeen ko gisee sànq ci vidéo yi gis ngeen ko ba ñu yegsee buntu Pikine ndeysaan da ngay gis euh, marchand ambulant yi ndeysaan di génnee xaalis di am di génnee seen i 1000 francs seen i 500 am na si ñoo xamante ne sax ay 2000 francs di ko jox ki nga xamante ne mooy Guy mari Sagna am ñoo xamante ne ndeysaan ay mat leen lañ ko jox na ko euh, Guy mari Sagna su ndogu jotee nanga nga ndogu ndeysaan mu doon loo xamante ne mu doon loo xamante ne lu doy waar. waaw lu doy waar ndeysaan gars ay fruits xam nga ay ay ay bañ a mat leen lu nekk ndeysaan ne ko guy guy mari sagna soo demee na nga ndogu waaw soo demee na nga na nga na nga na nga ndogu na nga ndogu voilà comme ni ma leen ko waxee nag non <laughs> bilaay walaay xoolal non trahir ma sax mafia bi wóor na man ngi di rejoindre li nga convoi bi presque ay 17 euh, ko rejoindre parce que man jour semaine yi waaw. voilà les gars yi ñoom ñu ngi ci kanam fule waaw ñu ngi ci kanam mais comme que convo ñoom Guy Marius Sagna ñoom dañoo taxaw fule waaw dañoo taxaw ne ñoo taxaw ne le euh, pour euh, wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, voilà mooy quelques gars yi taxawoon foofu noonu waaw mais convoi moom mu ngi ci kanam ak kanam ak kanam. ñool ñool ñool daal di nga libéré waaw waaw waaw waa fi la dëkkee. Ah, waaw gis nga voilà voilà Modou Gueye waaw Modou Gueye Modou Gueye Modou te nga xamante ne te mu ñàkkoon bakkanam mooy ci manifestation yi mujj yi waa fii koñam la ko moo tax convoi bi taxaw ci ginnaaw nële waaw moo tax convoi bi taxaw ci ginnaaw nële mooy euh, moo Gueye te ñu voilà jëloon bakkanam ci convoi yi mujj yi waa fii koñam la moo tax ndeysaan ba oto bi yegsee fii nii waa dañoo taxaw oto bi dafa taxaw voilà Voilà. voilà gaa yi ñu ngi yi ñu ngi foofu noonu ñu ngi taxaw ñu ngi taxaw di wax ak euh, population bi mooy population ginnaaw raay bi ndeysaan waaw comme ni ma leen ko waxee rek waaw euh, Modou Gueye Modou Gueye itam ñàkkoon ba kanam ci manifestation yu mujj yi voilà fii mooy koñam waaw voilà les moom mu ngi ci kanam a kanam convoi bi mu ngi ci kanam voilà ñu nekk ñu nekk di xaar